Thank you. son bi saay damaa gis ngay ngay ngay live rek ma koy xool nii maa ngi tuub de dama tëdd sax maa ngi japon gain maa ngi jégalu baax xam nga ndeysaan non non amul jégalu neex rek te des fois dama gis dama lay suivre ngay def ay live yu am solo gain mooy loolu ah, mais yaa ngi bu baax waaye safari si bi sax ñu a tijji ñu ngi doog a tijji di door a tàmbali tur ay eh, man Papis laa tudd Papis Papis Diop laa tudd waaw ñu ngi lay ziar bu baax mais nag bala mu gën ñu ngi sa nga problème dama guddee quoi maa ngi nekkuma nekkuma nekkuma Sénégal maa ngi Japon quoi te fi ma nekk nii instant bii la waaw mooy loolu <laughs> ban ban moo jot foofu Japon fii est-ce une heure du matin waaw mi ngi noonu instant bi Sénégal ñi ngi ngi ci parce que trois heures quinze heures waaw yee noonu la demee nag maa ngi foofu une heure du matin uh-huh, maa ngi jégalu dama waroon damay liggéey suba quoi mais xam naa ne beneen prochaine fois boo defee live rek dinaa ci gën a nekk gën a déggante incha allah man noo gisee émission non yow moom taw féex rek taw féex yaa ngi fàttali lu bëri des fois xam nga temps du am mais des fois ma ma ma zappe ko gis ci ay affaires yu important vraiment macha allah yàlla na def jàmm rek. waaw am solo xam nga dee leen sensibiliser jeunes yi gain ñu bañ a xaar état bi ci liggéey bi xam nga waaw. nekk ci liggéey bi <laughs> inondation bi waaw inondation bi moom état jarul xaar quoi xam nga volonté moom jeunesse bi Sénégal am xam nga. monde bi ñu ko am bëriwul te bu dee fii ñu nekk nii jusqu'à soixante dix huit ans quatre vingt ans da ngay gis paay di jaayante di xëy di liggéey kon jeunes yi waruñu toog quoi nañ bañ a xaar état bi liggéey xam nga affaire bi affaire de patriotisme la quoi pas toog di xaar état xam nga volonté bi rek bu bu ci nekkee rek bu yàggee leneen dina feeñ quoi waaw jaajëf maa ngi bëggee ñëpp di. mais nu ngeen nu ngeen dundee foofu ak mbas bi mbaa xaw na wàññeeku foofu. waaw fii de bàyyi mooy loolu on dañuy dund ak moom rek protéger wu quoi xam nga kenn mënu ko xaar quoi parce que économie bi moom xam nga mënuñu ko xaar xam nga waaw liggéey bi moom mënul xaar quoi xam nga ku nekk nag yaay yaay protéger sa bopp. kenn du la exiger ne la da ngay takk masque kenn du la exiger ne ngay def sa distance barrière mais yow yaay xam li nga bëgg xam xam fi nga jëm bañ lor nit ñi quoi. Bogi gisé dara commencé la dal nga moytu tok sa kër xam nga biñu exigé kenn bul ñëw wal bul taxaw fi wal bul def li mais yow yaay xam sa bop quoi té affaire bi affaire de ku nekk ya, yaay xam euh, problème bi nga mëna indil nit ñi quoi nga jéem moytu lu bari waaw dara ñu ngi lay bege bu baax baax ok bégee bégee bu wér yow rek bul wax dara amul problème. nag nag surtout nag bul fàtte partagé partagé ko rek ñëpp a see jot. waaw amul benn problème incha allah. merci waay merci merci. waa DJ avant nga indi son ci suuf non nooy waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum. a baax a baax baax a baax di wax tamit ndeysaan ñi ngi doog a tàmbali suñu émission rek xam naa ndeysaan dañoo tàmbali rek sa waa ji woote dugg ndeysaan fii moom mooy chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo ndeysaan ku ñëw rek bu essayé ñu jël la di wax tamit ni tey dimanche la ci seen émission mag bi di émission Ndongo ba faw di nuy ñëpp nag di nuy ñëpp di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di wax ne ku dugg rek na partagé ku dugg na partagé ñi ngi doog a tàmbali suñu émission ale l'instant yi ñu ngi di bëgg ñëpp ku ci kuy ore boo duggee ñu jël la ndeysaan xaarim juuf ça va waaw ana soxna si waaw xaarim Diouf maa lay ziar soxna si mu si jàmm bu baax a baax maa lay ziar baax a baax di bëgg ñu nekk online bi ñëpp di wax ne gars yéen ñu nekk ci online bi partagé leen rek partagé partage partagé partagé partagé ba sa biir pale ba dimanche seen émission Ndongo ba faw di dem diwaanu sax mbaaw nag di ziar ñëpp ña fa nekk ñëpp root na nag sama rak sama xarit El Hadji Cheikhou ak Amin Touré Souleymane muri sama impa di bëggee mbokki njàmbur njàmbur ñëpp puasa wajahnya waa iya Yang ñëpp kayak di wax ne gars yi ku dugg rek naka partagé gars yi partagé rek. DJ DJ DJ son son son son ma ñëw ci suuf waaw damaa important dama seen aram ngom sama sama kii comment dire ci suuf <laughs> na nooy seen fii aram ngom ndeysaan sama tante maa ngi ko seen ma nga nekk diwaanu assurance di ñu seetaan di seetaan chaîne télévision mag bi di Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision sur copier mais jamais égalé important sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne de Ndongo di wax nag tey la dimanche ci seen live en direct di émission Ndongo Lo ba faw Arma Ngom maa lay ziar bu la neex tamit man nga oote mën nga oote mën nga oote mën nga jaar ci online bi oote dugg intégré la dëgg baax a baax partagé partagé partagé partagé ba sa biir pale ba suma bay way dama ngay beko bakk bërisul alaaji favoris bay abdourahman yaayu ndey loo ko sant wàllu soxna ndey loo mooy sabaay jural nañu doom ak galas muy abdourahman mbàkke suma la waye na teli ya ma man maam isa man bala isa sa biri sëriñ mbàkke maaram lu ñu ragal lu ne mu jas ko di mesin seen sa baay lu nara la jaan mu labal ba moo labe yaa ñu gën maam ba tax ma yaa ñu gën maam ba tax na man ko ma ngir ngir bu sa kay dijee pause pause pause ma ñëw mais may bëggee gars yi di wax tamit ñii seetaan xamal laa bëgg ku dugg rek partagel ku dugg partagel ku dugg partagel ku dugg partagel ku dugg partagel parce que seen émission noonu la ba faw warul yomb warul yomb warul yomb warul yomb gars bëgg rek képp kuy seetaan boo duggee rek partagel ñeneen seetaan ñeneen seetaan ba ca biir pale ba waaw Macky Sall ak ñëpp mën a seetaan waaw partagé leen ba ca biir pale ba di jë son ñu dem Baba waaw ndeysaan képp ku bëgg ordre rek xaarim yaa ngi may oo gis naa nga jaare ci émission bi du foofu ñi nga seetaan direct bi nii da ngay intégré wu ci direct bi am na fooy def demande vidéo après ma jël la waa dijë dijë dijë dijë dijë arrête dijë wàññil na nooy Ousmane Lo maa ngi koy ziar xoolal beneen sama ma xool beneen xoolal beneen xoolal beneen xoolal beneen wàññil wàññil booy sélectionné son da ngay wàññi xoolal ma beneen son xoolal ma beneen xoolal ma beneen xoolal ma beneen digg xoolal ma beneen xoolal beneen rek xoolal ma beneen wàññil ndànk xoolal ma beneen dijj naa la daax de o ma beneen son waaw bàyyil boobu boobu baax na may ma volume déjà dijj may ma son may ma volume DJ may ma volume mbaa nga may ma son wa kaay yàkkan bàyyi li ma doone waaw mu ne ko bul sonn saa su nekk nii demee am kuy woote Xaadim Seen mais DJ son rek son yéegal ma volume bi Guys, ba harshen sa ba, malajin. Jigoro ga yarba hausa nan. DJ Nanoy Nanoy ma wax ak gaay gis naa ngay oote mais Khadim Sène fi nga nekk da ngay xaw a déplacé xam naa mooy xaw a daw xaaral ma jël la ma jël la xaaral ma jël la parce que def nga demande d'intégration vidéo teel mu ñëw teel mu ñëw teel mu ñëw ma lay bu baax a baax a baax teel mu ñëw déplacé wul tuuti rek fi nga nekk déplacé wul rek nga mu ñëw oh daw na daw na daw na xaaral ma jëlaat la xaaral ma jëlaat la waaw Xaadim Seen xaaral ma jëlaat la sax ba faw ñu nekk si première partie bi xam naa koy oote rek boo ñëwee jël la xaaral ñu jël la ñu ngi chargé jël la xaaral jël la. na nooy na nooy waaw mu ni ko bul sonn émission Ndongo Lo ba faaw ñu koy faral di amal tous les dimanches émission bi nag après mën ngeen seetaan seetaan télévision bi fële ca bëgg Ndongo TV télévision autrement de Ndongo waaw xaaral seen rek mu ngi chargé bu mu ñëw mais gars yi ku dugg rek partagé për waayo ndeysaan lan moo tax waa xarit seen ngi sas ngi sas ngi sas sas bijje xolam beneen soowaay xolam bala may seen waaw baax na boobu baax na merci vraiment lii ku mu doyul dara dootu la doy waaw di wax tamit gars yi ku dugg na partage xaaral ma dem jëlee ci gars yi ndànk-ndànk xaaral ma jëlee ci ku dugg na partage ma dem jëlee ci gars yi ma jëlee ci di jëm même volume ay waay dëggal loolu waaw ndeysaan ma jël ci gaay ndànk-ndànk Thank you.

Alain Seck partagel Aram Soxna Nabou Cheikh Ndiaye ah waa gars yi partagé waaw waaw ndeysaan sama tante Arab Ngom muy seetaan ma nga diwaanu sax mbaaw Arab Ngom Arab Ngom ndeysaan jaaraama yow ñeeño waaw mu ni ko ndeysaan nday tama sàmbay soo ñëwee ma la Oh, ah, assim vai ser na boa e se mame. Passei agora, não tô aqui, não tô aqui, não tô waaw may tama est-ce que ñu jël la may tama doomu yow grand bi partagé rek ba ñu jël la nga ni ko waaw mbay taba boo ñëwee njël la partagé leen partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé ba ca pale ba waa gars yi su ngeen partagé rek damay ñëw na ñibbi gars yi partagé leen lii yéen a ngi en sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV l'international la chaine télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal jubal leeral sur copier mais jamais jamais jamais égalé du tout gars partage partagé leen lii télé bi di seetaan ay caaxaan télé bi ngeen di seetaan ay fo c'est la télévision autrement de dongolo do ay caaxaan do ay fo c'est la télévision autrement c'est la télévision number one de Ndongo c'est la télévision mondialement autrement ngeen diko ko tous les dimanches ci cette émission mag bi di émission ndongolo ba faw kon ku dugg rek da nga wara partager di wax ni à l'instant yene en direct ci Facebook bi ci kanam touti ngir mën ko amat rediffusion bi ci Bëgg Ndongo TV international may ma volume. waaw ma jërëjëf gars yi. man su ma lay gi gi gi sabara gin gin hoo. rambas. rambas rambas gin gin hee. déggal loolu man su may way bala may sëy wala nga ne ci aas duma aas du bala bala bo bala may sëy ba sëmi sëmi sëmi guras gumbas gumbas bin bin he kaay Let's go. Bata gigi gigi sabarabi. Give give hey. Ah. bocas, bocas, ninguém é. Bala mais ela. Pois é. Neném bala mais ela. bala mais ela. Benga seque bala mais ela. Ué, pequeno. Gai para trás, hein? Cos. wëral ma beneen son pause wàññi ko ndànk wëral ma beneen son waaye di wax tamit ni gars yi wëral ma beneen di wax ni gars yi yéen a ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV foofu baax na. pause damay faral di wax ndesaan son bi dafa am solo parce que Ndongo nee na bul bëggati dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee dawal toog. ndaysan mo am solo torop wax tamit ni yeri nek en ligne ni partager len na ñep sétane ku bëgg or tamit man nga man nga ma demande rek demande d'intégration ma jël la ca kaw nga joxe sa contribution joxe sa xalaat joxe sa no gisee émission bi waaw instant bi rek ma ngi xaarandi gars yi maa ngi partage ndank ndank dem jëri ji gaay yi xaarandi leen kon dijje jox ma son nga yéelu ko ca kaw ma dem jëri ji gaay yi ñëwaat Thank you. waaw ba tey may ziarat gars yi bu baax a baax doo tamit yéen ngi seen émission Ndongo Lo ba faw à l'instant nañ ne ñu ngi ci première partie bi xam naa si kanam tuuti dañuy dugalaat benn son rek dugg ci deuxième partie bi dañuy dugalaat benn son bu jeexee ñu dugg ci deuxième partie bi may bëggee gars yi bu baax a baax di wax ne tamit képp kuy seetaan na nga partagé partagé partagé partagé ba ca biir pale ba di bëggee gars yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di bëggee gars yi bu baax a baax a baax a baax di bëggee gars yi di wax ne yéen seen émission Ndongo Lo ba faw waaw di jëmee ma son son boobu baax na trop boobu yéeme na ma ñu son. maa leen raw maa leen amee ma njukkal man Ndongo Lo maa a liggéey ba dee ndax ko. waaye di bëgg gars yi di wax toujours tamit yéen seen chaîne télévision mag boobu di chaîne télévision bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo la chaîne télévision number one de Ndongo Lo waaw tey nag tey la dimanche ma ñëw tamit defal leen seen émission Ndongo Lo ba faw di bëgg ñëpp diwaanu waa diaspora bi waa àdduna waa Sénégal ñëpp daal baay bàyyiwuma kenn di masawoon ak Sénégal ak ñëpp wàllu mbënn mi rawatina nag boo demee fu mel ne diwaanu Kër Mbaye Fall macha allah fu mel ne Fass Mbaaw sonn nañ ndox mi foofu moom dama naan la taataa ci ndox amul feneen di bëgg gars bu baax a baax clavier baax na ndeysaan bëgg kër yi rek demba demba yoof ndeysaan ku dugg rek partager ku dugg partager ku dugg partager ku dugg partager ku dugg partager ku dugg partager ñu dem may ma deux

ma dem jëli gaay ñëwaat ma dem jëli leen kaay loxo loxo loxo loxo loxo kaay kaay kaay su la neexee waaw waaw waaw kaay kaay kaay su Solamente wow kaay kaay su la neexee su la neexee nga toog bu dem yaay suwaasi rang muy yaay choisir rang muy gaaw rang muy gaaw rang kum kankan rang rang kum kankan dëggal waaji rang muy gaaw rang kang kung kang rang muy gaaw waaw ndeysaan Maodo Diallo maa lay ziar xaaral gaay ma jox leen ma jox leen studio bi ma jox leen studio bi ma jox leen studio bi sonn yéen a ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Música partagé partagé partagé ba ca biir pale ba yéen a ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo wa. waa Thank you. waaw ndeysaan ndigal lipin bu ñëwee jël ko ndigal lipin bu ñëwee ci émission bi ñu jël ko kooku mooy le grand DJ DJ depuis rajo Oxygène doomu Biram Ndaw ñoo ñoo xam Ndongo Lo rek ñu jël la grand bi waa taw na taw na nga jël bi xaar ma jëlaat la boo egsee rek yow moom sa contribution day am solo di jëlee pin yegg sil ma jël ngi en direct bëggu naa soxla sa contribution trop ci mission bi exil ma jël la waa dëgg la je sais DJ Lépine waa da ngaa nekk waa dëgg la mais incha allah restez connectés sur la chaîne télévision Beug Ndongo TV l'international la chaîne télévision autrement de Ndongo di jël Lépine ñu ngi lay jaajëfal doomu ndeyu El Maestro Biram Ndaw doomu ndeyu Jacob ndeysaan ma ñuy jooyte noppeeguñu di la bëggee bu baax a baax la wax ni waa Pikine ñu ngi lay bëggee yow moom baax nga DJ Lépine kon yaa moom lii DJ volume

waaye nga ni alaaji muse muse muse muse baay ah ah ah, ah ah ah déggal loolu wala ngeen jox kon gaali

yaay yaay gëm naa ni sonn nga ba muy daw yaay Western Banana yi ñu ñëw waaw Western Banana son bi dugg ci deuxième partie bi waxtaan ak waa askan wi pause pause pause DJ DJ c'est la DJ autrement waaw may bëggee gars yi baax a baax a baax di wax tamit ndeysaan à l'instant nii nag jóge nañ ci première partie bi instant bii nii dugg nañ nag ci deuxième partie bi xam naa nag deuxième partie bi nag fi la ñuy jeexale may bëggee bu baaxa baax dijël lipin ma lay bëggee lipin ñaa ma lay bëggee bu baaxa baax di wax ni mom yeen mom ma sha allah ay dijël ngeen yoo tamit ba ndongaloo dooree yeen do doon ak mom ndaysan ku ci mel El Maestro Biram Ndaw dijël lipin dijël zakop ya nako yalla yàlla ndaysan zakop di bëggee ñëpp zakop Jon da nah, ya nga yërëm fa mu nekk bëggee bu baaxa baaxa baax baax dijël baax yëpp dijël lipin ñu ngi ñuy El Maestro Biram Ndaw ñu ngi koy bu baaxa baax wa Oxygène radio Pikine bi c'est la radio autrement nga xamni timine fa jaar bari nañ amel ay ak ñi ngay dégg ñi ñep tay ñu siiw oxygène lañu jaar mo ne di jaajëfal di jaajëfal waa oxygène bu baaxa baax parce que dañuy siiw duñu seetaan ak wa Pikine beeg ñep waaw ndaysan demb demb rek ma ngi gis euh, pap Ndir kërëm bay Fall mu naan ma bëgg nga damay seetaan say émission muy émission ndungu na ba faw yi ma koy bëgg baax baax pap Ndir borom Pikine quartier daru di bëgg ñep wa Pikine quartier daru yi ma leen di bëgg ñum ñep baax a baax a baax bàyyi ma kenn wa ko ñu ciéré ñoom Paco Dia ñëpp daal di bëggee gars yi baax a baax nga xam ne à l'instant nag ñu ngi jëm ci deuxième part bi waaw deuxième partie bi nag xam naa fa la ñuy jeexalee si émission bi may bëggee ñëpp di wax ni quand c'est important sur la chaîne télévision bëgg ndongo TV l'international waaye tamit quand c'est émission important c'est l'émission ndongo la ba faw di wax ni kooku c'est le centre autrement c'est le centre autrement yaakaar naa artiste ngay woy def li fi ndongo la def <laughs> dina jafe trop trop trop nga way way ba sonn ba tas def def néew noonu def dina jafé koku c'est le roi de tous les chanteurs ndeysaan way ko te Pikine bi nga xam tay bo duggé duggee sax sa xal ci Ndongo Lo lay dem bu nee Pikine sa xal ci Ndongo koku yalla suñu borom Ndongo rek la ko defal sha allah diko ci si wax fa mu nekk yàlla ko gëna fi mu jógee bu baaxa baax di ñaanal tamit son petit frère di mam Cheikh Niang tay ma sha allah am na muy muy màggal gi ndeysaan yaakaar naa suma jumlee sax mu si tournage script bi di wax tamit loolu su génnee yàlla na ko yàlla defal ndam bu baax a baax defal ko ci ay ndam yu baax a baax a baax a baax a baax moom sax ñaa la moom moom moo yore héritage su Ndongo Lo waa dijë am ko sama maam sax ñaa tamit nga jox ñu ko ñu tuuti rek ko maam Cheikh Niakh nga xam ne ndeysaan comme à yi ni ñu ngi def seen émission Ndongo Lo ba faw à l'instant comme première partie bi jeex na ñu dugg ci deuxième partie bi deuxième partie bi nañ nañ ubbee maam Cheikh Niang rek ñu xool muy émission bu mu def ci màggal gi wooy ci cantaaku ni wooy ci Serigne Saliou Mbacké ci Cheikh Béthio wooy ci ndeysaan xalif généralu cantaaku ni waaw rendre hommage képp ku kuy cantaaku saan wooy ci màggal gi dañuy màggalee màggal gi di bëggee gars yi baax a baax di bëggee tous les ahlu Ndongo Lo Talla Niang maa lay bëggee di bëggee Pa Abdou Thiat le petit frère de Ndongo Lo

yéen auditeurs yi may saraan nag li ngeen dégg nii mooy soowu maam Cheikh bu bees bi nga xam ni macha allah mi ngi ci way màggal gi soow bi rek mi ngi tudd ndigal jëfe son baa ngi tuddu ndigal jëfe ndigal jëfe waa ndeysaan dijël bi ndaa mel ne ñëwaat na ma xool ba xam dinaa ko mën a jël ndeysaan ñun ba ñuy nekk ay xale yu ndaw dañu leen di suivre ngeen def nice ci Ndongo Lo yi di jël sa gox biir oxygène su ma jumalee ñoo jëkk a enregistré foofu Ndongo tabalay tëgg mu ni der way fa tubaab bi moom moo ndar ndeysaan ci sa am na son bu am si son dong loolu bu mu def kabo kabo live bi ay yow yaay fonku naa la kabo boobu su ma jumalee ñooñu dañ naan bëgg ndongo lo ndeysaan ndeysaan yéen ñooñu waaw kenn ngeen defar mu baax ba mu ndeysaan kenn ngeen ci biir Didier teel ma soo noonu ma xool Didier Lépine mi bu fekkee mi ngi online ma jël ko parce que moom bu sànnee ñaari kàddu sax baax parce que ndeysaan Didier Lépine nga ñëw gis xam naa mi ngi diwaan bitim réew mais teel ma soo amee noonu maam sax ñaar bu ñu paree duggee ko suñu deuxième partie waaw Didier Lépine yow egsi rek def nga demande d' intégration vidéo accepté naa la boo xaaree tuuti mu chargé wu nga dugg waaw contribuer joxe sa ñaari kàddu teel ma ko teel ma ko teel ma ko pause waaw Modou Bey maa lay ziar Modou Bey ñu ñuy seetaan Modou Bey yow partager rek DJ nee na dàq de teel ma son bi ma ñëw waaw xam naa DJ Lépine comme ni ma waxee dafa nekk si yoon dafa nekk si yoon xam naa moo tax dugg bi day xaw a jafe dafa nekk si yoon mais amoon naa yéene mu dugg trop rek ba jox contribution waaw kon DJ xam nañu def dugalal maam Cheikh Niang bi la ñu dem let's go maam Cheikh Niang la petit frère de Ndongo Lo kaay Cheikh Béthio maam Cheikh Béthio waa ndeysaan di jëlipin waa dëgg la nee fi ma nekk la waa dëgg la yow amal jàmm rek yéene bi àgg parce que tamit vraiment bu ñuy def émission tamit ku mel ne di jëlipin nga xam ne c'est la DJ autrement nga xam ne ndeysaan tey dama naan Sénégal bëri animateur mais yéen moom waaw yéen kenn du yéen dama naan yéen Sénégal ñoo amal njukkal parce que vraiment di jëlipin El Maestro Biram Ndaw Jacob yéen li ngeen joué ci créé na la macha allah dafa roy waaw DJ ñu ñu dem ñu dem ñu dem aywa ay saari ndigal cuunooy yaa si di janta nak ba faw waaw let's go yow cuunooy yaa di si jàmbaar nag ba ginaar la ma lay tëral ngir tëral gan ñi ay waay saali ndigal cuuna ay waay gan ñi mama balala màggal gi dañuy màggale màggal gi nag gi dañuy màggale màggal gi Fatou Aziz gi dañuy màggale màggal gi. lamb ñaan pare naa. màggal gi waaw. dañuy màggale màggal gi. jëndatu ma waa li mel. daaru xudóos daaru daaru tansiir daaru minam minam ba liggéey. seeti màggal gi màggal gi. daara ñaan. bay faali màggal gi. dañuy màggale màggal Gaye eh, Magal Gaye. DJ li neex na de indiwaat ko dije joxaat ma lii li neex na trop ak maam Cheikh Niar joxaat ma ko comme ñu ci deuxième partie bi non pause joxaat ma son maam Cheikh Niar bi. poos pause. waaw dañuy ñëw dugalaat sama maam Cheikh Niang bi bu ñu paree seet benn ndongoloo indiwaat maam Cheikh taje tëjee su suñu part bi bu fekke amul kuy woote ku nek ci online ñu jël ko xamna instant bi amul kuy woote ku nekk si online mais joxal ñu mam sax ñaa bi nañ dem yoy sangu ñoy jaar yoy ya ngi sangu ñoo di jaar ma ñew pause ma lay dàq di ji waaw ndaysan li nag lu bes tàq la muy mam Cheikh ñaar le petit frère de Ndongo Lo l'héritage de Ndongo Lo ndeysaan lii lu bees tàq la tey instant bi nag ren ji mu génne ko nag ci maal gi ñu ko si ñaanal ndam tout lequipe de chaîne télévision Bëgg Ndongo TV l'international di ko si ñaanal ndam tout auditeur tout téléspectateur de Bëgg Ndongo TV l'international ñu ko ci souhaité bonne réussite et totale tous les fans Ndongo Lo ñuy àndandoo tamit di ko ci souhaité une bonne réussite et totale ndeysaan ak waa Sénégal beeg àdduna beeg ñëpp ndeysaan lii daw na yaram parce que mi ngi ci way magal gi dama naan à l'instant yi nag ñu ngi génnee ay kundung kundung kandang kandang waaye képp kuy way bay boo nga ranger li ngay way teg ka à côté parce que lii maam Cheikh ñaa way ci magal gi génnagul de waaye lu yéeme ngi nii te neex na trop trop macha allah.

Guys, wow, wow. national bi noppi na dañuy màggale màggal gi bëgg ndongole international noppi na màggal gi dañuy màggale màggal gi Ababacar Mbay Caam noppi na màggal gi dañuy màggale màggal gi Astu Njaay noppi na màggal gi dañuy màggale màggal gi bëgg ndongole international bi noppi na màggal gi dañuy màggalee màggal gi Ababacar Mbaye Thiam noppi na màggal gi gi Fatou Aziz gi pos màggal gi Ababacar Mbaye Thiam noppi gi dañuy màggalee màggal gi soxna na bu borom Espagne noppi na màggal gi dañuy màggalee màggal gi Cheikh janaar noppi na màggal ge dañuy màggale màggal ge Mbengue Seck Seck noppi na màggal ge dañuy màggale màggal ge du Thiam noppi na màggal ge dañuy màggale màggal ge Aram Fay borom Mbuur noppi na màggal ge dañuy màggale màggal ge di jëson kaay màggal gi dañuy màggale dijee dijee nanooy waa ndeysaan nanooy wàññi nanooy alestaan suñ jógee foofu nag dama bëgg rek bëgg nag ñu xool ji beneen son Ndongo ñu dugal ko suñ parewaatee ñu ñëwaat ci maam seen ñaar tëj émission bi nag xam naa gaa yi woote tamit ku woote rek ñu jël la waa nañ xool ji benn son def ci casque bi jënd ko Dortikas di dugg Modou Bey waaw di dugg waaw wàññil wàññil dañuy def casque bi dindi ko def ci casque bi si biir pare waaw dindi ko branche bi waat wàññil wàññil xool yi beneen son doow la bu tàng wàññil tuuti nga lambar son yi wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil waruñu beneen son kon nag demal waruñu beneen son wàññil demal demal demal demal jalan waaw mu ni ko bul sonn yéen a ngi seen chaîne télévision bëgg ndongo TV l'international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal jubal leeral toujours copier mais jamais jamais égalé du tout quand c'est sur la chaîne télévision bëgg ndongo TV international la ñëw tamit ndeysaan nekk seen xarit seen mbokk tous les dimanches mu ñëw tamit defal leen seen émission Ndongo Lo ba faaw may def coow di dugg biir Louga fu ñuy wax njagu roy di leen bëggee di dem fu ñu wax saxaaf di leen bëggee di bëggee moo ki njàmbur njàmbur ñëpp ñu ngi siibur waaw bàyyil boobu mu dem su fekkee mun naa nekk DJ bu ko ba mu dem may ma volume may ma son I'm mel tamit ndaysan ku melni Cheikh Kébé mi ngi oote wa Cheikh Kébé fi nga nek da nga xaw déplacer tout rek da nga xaw déplacer déplacé wu tuuti ma jël xamna problème connexion bi moo tax affaire bi mais déplacer wu tuuti rek xaaral ma jëli jowaat la wa di jo xool nañu foofu benn sonn bu neex rek ñu dugal ko suñu paré nak dugalaat mam sa ñaar tëjee da nga wañu wañu volume volume wa volume volume fofu

demal doxal doxal doxal doxal doxal waaye Cheikh Kébé mi ngi ootee xam naa instant fi nga nekk rek xaama jëlaat la ba xam demal demal baax na baax na We live mel ne Cheikh Kébé mi mi ci gitu. si online mi ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV l'international. waaw gis nga. yàlla na mo na la yow. maa la raw ma la raw. nuyu na ñepp ma la bëpp bépp na naa leen. ñëpp ngi lay fay sa maa lay ziar bu wér wér. maa leen ziar bu wér wér. delo ziar delo ziar. na ngeen def ak ciono bàyyi yéen ci jamm si jàmm. ci jamm bu baax ba ni la yalla yalla yàlla xet lool amin amin tey nag yaa ngi en la amul fenn li ngay animé amul fenn amul fenn amul fenn non dañuy dañuy jàng rek dañuy jàng rek dañuy jàng rek yëngal nga ngi dama cel fan yëpp waxuma ya, ma wax loolu maa ngi ñàkk te xib ndeysaan ndeysaan ngi tawal sama gars yu baax yi sama paa sama waay sama paa baax nuyul ma ko nuyul ma may ndeysaan ndeysaan xoolal lool. ndongo loolu rek la ñu béggee ah. ah moom père moom père maa ngi lay ziar jox ko paay waxal paay maa ngi lay ziar <laughs> ah, bi neex na. waaw maa ngi ah, trop. maa ngi ziar di jox déglu bu neex. Nesa, Nesa. donc loolu dafa neex. ndeysaan Nesa, Nesa, la. moom rek mooy suñu kii mooy suñu Nesa, ndeysaan moom rek la ñu faa nag. dañu ko tegal dañu ko tegal bu neex. ndeysaan ndeysaan. waaw. tur bi naka la papa tur naka la. ah ah. noo tudd. man. Abdou Touré waaw Abdou Touré. Gede Gede Gede Touba. Touba Gede waaw Gede ndeysaan. waaw waaw ci kebe kebe yi kebe kebe yi. ah waaw dëgg la ndeysaan. non bokk koñ. ndeysaan ndeysaan xoolal loolu. Omar Pen it nu Omar Pen. dëgg la ndeysaan ñooñu ñu mën a ndeysaan ndeysaan maa jaara ngoone wadd trop numéro un ak Omar ak Omar ken ndeysaan waaw ndeysaan ñu neex nañu lool ndongo lool neex nañu bah baax a baax a baax ma ne leen papa ñu ne bu baax baax baax waaw waaw ngi leen di sant yéen moom kenn kenn yéen quoi bilaay yéen lu neex. ndeysaan ndeysaan. nday. mais tey boo amoon looy wax looy wax Sénégal wala waa àdduna tey loo leen di wax instant bi àdduna bi ñu ngi lay kii ñu ngi ah? amoon message message booy tey looy jàllale. numa ma jàllale. message booy lancé pour ñaax jeunes yi jeunes yi xale yu ndaw yeeg jeunes ci animation bi rek sa animation neex. su bëgg yónnee animé danga may animé eh, ndongolo rek. amul Omar Pen Omar Pen it neex na ma wax dëgg yàlla. dëgg la dëgg la ndeysaan. Oh, ok. ok amul problème amul problème yow yow papa restez connecté rek. allo. allo oui Cheikh.

mais eh, incha allah dañuy da ngeen préparé incha allah magal gi. waaw ñu ngi koy préparé bu baax bah baax kay. wala ñu ngi ci préparation bu baax depuis temps yëpp ñu ngi set setal dëkk. dëgg la mën naa avant magal sax ma Touba ñu ngi préparé bu baax baax fa ci ak borom Touba. yow yow rabbi on wéete ko suñu bés Abdou Khadre léeg-léeg bu amoon mm-hmm. boo xoolee TV international yi noonu mooy mbedd ko suñu bés Abdou Khadre ñëw de hmm? ndeysaan dégguma man yow tey bu amoon loroon lan looy lancé ah, looy lancé téléspectateur bëgg na TV international maanaam arna beeg fans na ñëpp tey ban message ban message nga bëgg a jàll la tey parce que instant ñëpp ngeen déglu hein man tey bu amoon tey benn message booy wax waa àdduna tey looy wax waa àdduna message booy jàllale looy wax ci maanaam pour encouragé ko wax ñu ci émission. wala wax rek Ndongo Lo ca kaw kanam. mbiri Ndongo amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am. waaye nag alhamdulilah ndegam am na ku ñu koy xoolee muy maam Cheikh. na gën a góorgóorlu rek. xam na moom na jiit rek ñoo ngi ci ginnaawam. waaw en tout cas daal li muy dóor moom neex na trop. neex na trop waaye na góorgóorlu bu baax man dama koy encourager té bu gor bu lu du mëna dina ki ndong waye dina baax inshallah incha allah yalla la fa chat nak bay ci chat bi fi ci bëgg yegg mo yegg nga bàyyi siñ saag mais yow lagi. Euh, baax nga baax nga baax nga baax nga baax far from baax ba ngeen ba ngeen jappé ba légui demu tay do a ñëw yàgg na yaakaar na man yow 2000 wala 2000 mille deux mille lañ xamanté ba suñ jënd yàlla tey jii mos ñoo tegante bët mais mi ngi mëna chaque fois ñi ngi tok ñi ngi gisé lépp yow la nak et puis lépp lu ma jaaxal ci ndongolo su wala la nga leeralal ma kon nak yow mention félicitations spéciale ngay am kontaan ci yow torop nak dëgg la xanaa sa benn budug xarit nga nekk noonu. ma ne xanaa sa benn budug xarit nga nekk. waaw waaw sama budug xarit laa nekk. sama budug xarit laa nekk dëgg la dëgg la yàlla def barke rek. maa ñëwoon toog ci moom nii. comme que man fee laay ma gën a xam. diw ma dara gaale mën naa ñëw wétti ci gars yi. la mais yaa rek.

jafe jafe-jafe për kilim rek wallahi yeggul ay deux semaines maa ngi doon waxtaan benn ñi ci waxtaan benn kilifa mais macha allah macha allah macha allah macha allah xam naa daal tëdd na fu mu tëdd waaye doomu aadama yi fàttewuñ ko ñëpp a koy ñaan ñëpp koy ñaan yàlla yàlla nangu lépp ak Seydina Mohamed joteekam. amiin amiin mboolem waaye daw la. amiin te yeexañu ko nag yàlla nañu ko yàlla yeexañ salaam amul problème yow moom ñun tamit ñu lay jaajëfal bu baax baax di jaajëfal waa Touba ya, yëpp. Ya, yow yaa baax yow yaa ya, baax. yow baax di jaajëfal waa Touba yëpp ñëpp ñëpp. ndax ngay def nii ñun ñëpp la war mais yaa ma gën xam. waaw dañuy jéem rek dañuy jéem rek seet. ci rek. ba nga ba ndam li ba ndam li rek yomb bëgg tax. fésal ko dëggal ko daa yóbbul de tar yàlla may na la kon wax dara naa la bàyyi rek nga continuer liggéey bi yow amal jàmm yow resté connecté resté rek d'accord rek waaw dama naan la resté connecté rek sur la chaîne Bëgg Ndongo TV l'international ci kaw ci kanam rek ba ci kanam incha allah maa ngi maa ngi jaajëf jaajëf maa ngi maa ngi merci ciao jaajëf ba si kanam incha allah. merci beaucoup. jaajëf waay. waaw kon ndeysaan yéen a ko déggandoo ndeysaan kooku nag ndeysaan moo nekkoon Cheikh Kébé nekk diwaanu Touba di ñu oo di ñu bëggee vraiment tamit nga xam te ne ndeysaan ma ngay suivre émission bi fële ci bu baax a baax xam nga Ndongo li mu am jafe na ndeysaan dem ba suñu ay paa suñu ay maam ñëpp di suivre Ndongo Lo di bëgg Ndongo Lo parce que way noonu la way moom macha allah dangay ngay way luy digle way luy defar way luy jëmale nit ñi ci kaw ci kanam. ba taxna na du fay suma djumale musique Ndongo Lo feeg ba faw du fay parce que à chaque fois boko deglu rek dara la yok yela waaw nga man ci xamé man ci jangé man ci ragné par rapport ak musique yo am si musique bu ñetti fan la rek mu xewi waaw Ndongo Lo moom dama naan du moromu kenn du moromu kenn waaye ndeysaan mel amna kuy woté mel amna kuy woté ki de nak da mel sama mbàkke mbàkke bi Serigne isa Mbàkke wa Serigne isa bo ñu wéré ñu jël la sëñ isa boo ñëwee ñu jël la boo ñu jël la boo ñu jël la may bëgg ñëpp di jë may ma son may ma son batulo laggi wo dogoto gone dune ngay doon so koru koru so yey yey yey waaw Sore yo mu ni ko partager partager partager partager partager partager partager partager waaw ndeysaan dugg rek partagé yéen a ngi en direct la chaîne télévision bëgg Ndongo TV l'international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo waaw ñu ñëw rek ñu dellu ndeysaan waaw oh, waaw waaw man ndeysaan ma koy woote Mame Mbaye Sylla Mame Mbaye Sylla soo ñëwee soo ñëwee bëgg la mamba e ngowam kitap tapat nafas mamba isinda kitap tapat nafas mamba isinda mas não só I'm going ñaa ñaa lañu sedd rek dem jëliwaat ko indi ko jeexale foofu nag mam sa ñaa Ini jeexal day sëriñ mam sa ñaa jeexal Mam Cheikh Niang na nooy na nooy Wow, nooy na nooy waaw ndeysaan à l'instant Mam Cheikh Niang xam naa ñiy war tamit bu ñu ñëwee rek ñu jël leen mais suñu ñu ngi suñu cëppaandoo émission di wax tamit nii rek lay demee saa nekk seen émission Ndongo Lo ba faw yéen tamit yéen ñi auditeur tamit di seetaan ndaysaan tamit seen ay participation mi ngi si biir parce que ku seetaan rek boo duggee rek partagel maanaam partage bi day yokk tamit ñeneen ñi mën a xool ñeneen ñi mën a xool ñeneen ñi mën a xool noonu lay lawee di law di law law law ba ca biir pare ba waaw noonu laa ko bëggee gars yi ku dugg rek na partagé ku dugg rek na partagé xam naa nag à l'instant ñu ngi suñu cappaandaw émission xam naa dañuy dem rek jëli ji maam Cheikh Niang maam Cheikh Niang dafa def nag son bu bees muy ndigal jëfe mu woy ci Serigne Saliou Mbacké woy ci Cheikh Béthio rendre hommage ci toutes les cantakoun rendre hommage ci toutes les mouridisme toutes les mouridisme son bi nag bientôt rek dana génn incha allah à l'instant bi nag mi ngi ci tourné clip bi di ko ñaanal bonne réussite et totale maam Cheikh Niang le petit frère de Ndongo Lo l'artiste number one de Pikine ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di wax tamit euh, waa Pikine seen doomangu noonu maam Cheikh Niang di wax tamit wa Pikine seen dom mi ngi noonu ndeysaan ngeen ñaanal ko jàppale ko mu jëm ci kaw ci kanam rek parce que magam la won mo ñew xéxal Pikine yëkëti Pikine siwol Pikine dem ba amerique di fa jouer ay soirée sax di wax Pikine Pikine dem bay way nan lu mu guddi guddi lu mu lendem lendem Pikine ba tax tay turu Pikine bu exporté wo dem fune ñepp nan Pikine Pikine ku ne bëgg dëgg Pikine c'est grâce ah ndongoloo mu sëñ Fallou Mbacké ndeysaan di ko ñaanal bu baax a baax fu mu nekk gën ko fu mu jógee kon dijje jox ñu maam Cheikh ñaan njaamu kaay let's mais dijjal yi neex na de joxaañu son bi après ñu jeexal nag joxaañu son bi ndeysaan dégg loolu ay Essa mulher é Isang mo di niya Sindical waa gars yi nag ndeysaan lu neex du doy dañu koy dog ba beneen yoon su beneen yoon ne mu gën fee neex à l'instant ni nag yéen seen émission Ndongo ba faw xam naa nag bul sonn fii dañ koy yemale rek ba beneen yoon ba beneen dimanche incha allah si kàttanu yàlla ñu ñëw nag àggali toppaat si wiitu émission bi chaque dimanche rek lay faral di am incha allah bu amul emplacement amuñu yenn kalkal yi chaque dimanche ndeysaan incha allah bu ñu wàccee rek 3 heures bi dañuy def seen émission di émission Ndongo Lo ba faw mooy bëgg nag waa diwaanu Touba Cheikh Kébé ak Pa Touré moomu ñooñu noonu dañu bëgg ak waa boutique ba dafa ñaan xewal suñu borom wàccee ko fa ñu bëggee ñëpp xam naa ba beneen dimanche incha allah seen émission Ndongo Lo ba faw tey nag fi leen yéeme seen émission di ci ànd ak maam Cheikh Niang maam Cheikh Niang nag single boobu ndeysaan incha allah si kàttanu yàlla à bientôt rek lay génn incha allah dara à l'instant émission bi kon gars yi daal incha allah ba beneen dimanche rek xanaa ma ñoo génn ci mbedd mi nii oh la la beneen dimanche rek incha allah ay waay saali negal tuuba yaa dikki jàmbaar nagba dina mokana mutara Thank you. Bye guys. Sorry.